jërëjëf mbokk yi seetaan déglu lii ngay séen moom mooy karité collagène vitamin E muy ñetti mbir yoo xam ni bu ci nekk rek mën naa indil nit ci wàllu yaramam melokaan woo xam ni dafay tëggu liis rafet yàññ ba ku ko gis ku ne gis ne yaram wee ngi dund loole la tëgg nag boole ko tëggin woo xam ni day méngoog jamono ba nit ki ci boppam saa bu ko dee jëfandiku moom ci boppam dafay gis ne derwee ngi dund kon quarité collagène vitamine E muy ñett yoo xam ni ku xees ku ñuul mën ko jëfandikoo ndax collagène dafa bokk ci ñun ndax am naa doo xam ni boo fa tolloo collagène bi ci boppam day bàyyeeko te bu bàyyeekoo dafay feeñ ci yaram bi moo nga gis ñoo xam ni ñoo maase waaye kii collagène jeex jeex goo xam ni dafay soppi yaram wi kële di dundal collagène am ba yaramam day yaañ rafet lool macha allah. loolee la ñu bëgg nag ku nekk ci ñun daal di ko ci comp lenn loo xam ni dafay renforcer li ni mel moo tax seen cabinet Biorahma indil la karité collagène vitamine E nga mën ko jëfandikoo jëfandikoo xam ni day méngoog jamono a ca dàq nag mooy booy tëdd nga daal di ko laal laal goo xam ni day yéeme boo xëyee sangu nga sant